Thank you. Assalamualaikum internet yu bëgg informé mi nuyu naa leen bu baax baax jox leen seen way cheikh nak bo xol li sama ginnaaw nga xam ñi ngi nii côté yëngu leen bu ñu ñëwé yëngu leen nak dañoo sét ci borom yëngu leen ginnaaw bi ñu gisé ñi nga xam ñom ñoy wa Descos ñor walum kër yi yi nga xamante ni dañ leen tabax ci place yo xam momu ñu ko mu bokku ci li nga xam ñom ñoy seen ay appartement mu mel ni ak tay ñi ngi ni yëngu leen ki ñu taxawal nak moy borom yëngu leen dañoo fas yéene waxtaan ak mom ci tiis wi nga xam mo dal ci kawam señ bi ma ngi lay nuyu maa ngi nuyu di leen fay di sant yàlla vraiment xale yi laa doon kii parce que ñu ngi récupérer suñu feer yeeg affaire yeeg yëpp léegi nag euh, li gaa yi joxoon nañ sommation mais man avant loolu fekk amoon naa sama kayit si maire bi ak demoon naa domaine pour ñu defaral ma parce que bon ñoom nag bi ñu ñëwee waxoon nañ ñu fii du kenn du ko laal parce que defar nañu seen tali ba pare mais après que dañu bëgg ñëwaat défer deuxième bruit té waxu ñu loolu yëgalu ñu ko quoi. tay dañu xey rek bett leen ñëw. xey wa fekk na ñun amoon naa jot bu sax. Mhm. parce que buñ ma joxé sommation jëm na pousser na bagage mo yooyu nga gis mu pousse si kaw non mhm. waaw ba pratiquement ya xalu ñu dara quoi. tay bo doon xayma ci li nga xamni mom nga defoon ci yëngu leen ñaata ci ñaata nga yaqulé wa yaquna ay millions yu bari yaquna fi nak mhm. mais nak euh, ñu ngi sante yalla comme ñu ngi tok ba diko netti nettali. yàlla mën nañ joxal lu gën loolu. waaw yëngu leen nag dara ñu ko ci biir mhm. xale yaa ngi noonu yaa ngi leen dégg ñu ngi tëgg te am na xale yaa ngi dem def euh, salle sport mhm. ñii ngi def euh, euh, culture ñu ngi ci biir mhm. te samedi incha allah am nañ fi benn mariage ak benn soirée incha allah. mbaa tombantewuloon na nga am ay contrat yoo xamante ne ni seen ay borom dañ fi war a jouer. waaw ñoo amuñu benn problème ñoom dañuy jouer si biir saal bi kenn laal ko kenn tëju ko. kon buñu wax yëngu leen toj nañ ko déedéet débordement bi du man kenn rek nañu toj toj nañu fi yëpp loolu nag man tamit. mais est-ce que tey bi ngay defar fi yow xalaatoon nga ni un jour mën na ñëw pour lii nii tis bi daal sa kaw. waaw xalaatuma ko woon bon ndax yàgg nañ fi. ça fait depuis 2003 ñu ngi fi. kon nag loolu doo ko mën a xalaat mosoon na ma daal une fois. moo tax affaire bi miis naa ko quand même. ndax gëm yàlla rek ndax xam naa lu ñu la yàqule yàlla li mu lay jox moo ëpp loolu foofu. waaw yàlla wërsëgal na ma loo xam ni surtout les étrangers ñoo ma gën a jàppale pour ma defar li kon nag sant yàlla la quoi. mais tey lan bi mu yàqulee yëpp. waaw li ñuy xaar dañuy dañuy aménager comme yëngu leen bu njëkk ba rek bi nga xam xamoon amuloon débordement. Mhm. loolu mooy ñëwaat rek. Mhm. ñaan yàlla am ñu yàlla mayan ñu beneen yëngu boo xam ni. Mhm. jam ñaajo lay nekk wala feneen <laughs> <laughs> waaw ñu créé yu bees. mais à peu près li nga xamante ni mom lañ yakku ni nee nga j'ai des millions yo xamante ni ci ci def est ce que tay ñom dañ lay rembourser waat wala non man attendre pour ñu rembourser ma xaaruma si loolu sommation bi ñu la koy jox lan lañ ci def wa dañuy ñëw pour toj dal pour démolir hmm. parce que dañ am avancement bu nekk fi mhm. ñu né dañ koy toj yow ñaata yoon lan la jox sommation bi ah kon kon to ma ko rek to wa ah, xamna jox nañu plusieurs fois wa léegi ñoom rek ñoo commencé. waaw waaw xëy xëy rek waaw commencé. fekk man jotoon naa pousse waaw maa ngi doon fagarlu ko moo tax sama bagage yu bari yàquwul la. Mhm. yëpp di dindi naa ko. n'est-ce sa travaux yi bu yàggul encore. Mhm. yàggul yàggul. mais ñoom dañ lay gis ngay defar ba léegi ñëw carrément mais xam nga rek. Mhm. lu war a dem daal day dem. kon nag comme que ñu ngi toog ba ka di ko nettali ah. ñu ñaan yàlla may ñu leen lu gën lii. waaw ñoom des ko su leen wax dara fekk ñoom tamit seen kilifa yi ñoo leen digal ña leen digal ña nga ca kaw taxaw di leen xaar man tamit doomu militaire la sama papa militaire la woon def na guerre 14 18 kon ñu man kii ma daal dama see juddu daal si lu mel ni du ma tiital trop awma ci benn tiitaange sant yàlla rek. da nga pësee ne puusaat yëngu leen ci ginnaaw. waaw continué waat say travaux. waaw. wala da ngay jëlee fii yëngu leen yóbbu ko feneen. jëlee pas bi kay fi mu samp nii. Mhm. yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil mu sàgg yàgg lool. ndax dañ ma si ñaanaloon te ñaanal bi yokku na bañ koy toj kon nag loolu sant yàlla la. Mhm. waaw vraiment. Mhm. maa <laughs> maa ngi sant seen bi vraiment ñi ngeen ñëwee soutenir ñu aussi pour xam situation yi. merci beaucoup jërëjëf.